géero géer ñaa ngi nii daal muhammadu rasulullah abdallah baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na bee jërëjëf euh, euh, sang bi fi ngi jëm rek directement tam ñu jëmaat ndax buñ ne yonent bi rek sallallahu alayhi wa nga mel ci moom loo xamante ne doo amoon ci sago ñu bari xamee nañ la ci wàllu woowu euh, mu mel ni jamono ji weesu rek amoon na daanaka ñu ci bëree bëri delluwaat ci jamono njëkk nañ ko fee dégg jigéen góor génn te fi génn ba indi sax seen i kaaba ca diwaanu Kolda wan indi seen i bopp di mel ni lu fay aj yu demee li ne mel indi seen kalam bopp di ko julleeg mu mel ni jamono jooju ginnaaw yonent bi bëri na ñoo xamante ñu ngi bëgg ñëw di nasaxal yoon wi sang Barham Ndiaye lan nga mën a indi ci kàddu yooyu. jërëjëf salaatu wa salaam ala ñu ngi sant bu baax ci kàddu yu sell yi nga xam jóge ci ku baax jóge ko ci ku sell waaye ñu war ca waxtaan ci muy lislaam yonent al maam sasam waxoon na ne jamonoom kaddaabuna salaasuna wax na ne fanweeri fenkat dañ taxaw ci àddina bi ne yàlla ma yónni ay ñoom ñëpp waxuñ dëgg dañuy kàcc laa ne boo tabax di yonte maa ko tëj man maay xaatamul anbiyaa yi yonte yëpp tëj naa ko kon gannaaw yonte al Muhammad yonte dootu ñëw dootu ñëw mukk sallallahu alayhi wa yonte al Muhammad sallallahu moomu nag saa yow tëjee maqaama rek day day ubbi beneen maqaama ñi xam xam ñi mu taxawaat waaye laa nëboota baax di loo leer na te yonent bi yàlla fii senegal nag moom ëtt la bokkoon loo fu ji mu sax ndax loo fu ji mu sax yaa xam lan la nag gis nga asmaan bu tawee suuf bu tooyee léppay sax waaye baykat bi nga xam ne moo war a bay moom bu ñëwee dana xàmmee lan mooy yéeféer yi ak la ma jullit yi qul yàlla xaq wa zaaqal baatil mooy ñax mi mooy baatil waaye gàncax ga ngay dégg nag mooy xaqu bi loolu baykat bu ne xam na ko am lu ba nag bu taw amee rek léppay saxando waaye nag lañ cay soxla ñun waaw du lépp de man la war a jëriñoo kon tey diini islaam mooy suñ diini ñun ñëpp lislaam diina la boo xam ne maa saada maa naqas amul yokk amul wàññi bàyyi na si dafa wax mu ne fa ahmadu baabullaahi inna salaam mooy bunt yàlla bunt boo xam ne du tëju mukk wala xasdu nag na waxu waa bala xanaan tan siilan bàyyi mu ne maa saada maa naqas diine islaam ji amul yokku dara am wàññi dara bari nag kuy waxtaan tey ci jamono nga ne kii day yokk fekk yokkut yaa xamul li xew waaye yokkut martaba yi dañoo am doole dafa martaba boo xam ne mooy martaba martaba islaam am ba liimaan am martaba lixsaan am martaba lixsaan ihsaan yëpp yontu rek moo ko moom lépp ay martaba yontu sallallahu alayhi wasallam la léegi nag Sénégal wax dëgg yàlla boo xoolee boo xoolee da am gàcc gis ne fii jigéen sax taxaw ne maa yontu yi jigéen gu oote ak risaala ak yontab yàlla xam nga loolu mu xaal musul am bayal nekk yàlla ba léegi musuñ gis yontab yàlla bu nekk jigéen musuñ koo gis te Alxuraan moom waxul ne benn yoon ne yonent jigéen am na yàlla nag ay góor rek lay wax kon te bi mu ko waxee tamit am na ay góor yu ko dëggal kat am na góor yu ko dëggal am na ay jigéen yu ko dëggal moo tax may ne Sénégal la fa jëmu sax waaye nag du tee ñi xam ñoom am nañ tamise xam ne lii lor xam luy jëriñ lislaam mii daal ku fi oote benn maqaam boo xam ne dafay génn lislaam du lu ci bool ci islam ñun yonent bi yàlla moom jeex na rawatina nag yonent bi yàlla bu jigéen ñi fi oote ay yunte ay yunte ay yunte lañ bëri nañ lool lool lool fa tabala sana xaaliqin waaye yunte sam rek moo nekk yunte ba yomal xam moom rek mooy yunte bi yàlla bi moom nag moom ba pinc yàlla moom moo fiy des wa maa arsalnaka illaa kaafatan naas mu nekk bashiran nekk nashira sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yoon ci yom ci yoon ci mboolem mbindaafoon yi muy xuppaakoon di bigalaakoon képp ku mu xoo ci kalama tawhid nga nangal ko mu bigal la képp ku mu xoo nga inkaar ko mu xuppale ci ca lali fi àllak àllak subhanahu wa taala jamono bii nag tey senegal amatina amati na gàcce réew mi am na gàcce senegal islam amati na gàcce gàcce goo xam ne musu ko am wax dëgg yàlla lii moom ote ba na jaar fi sax waaye bii oote moom moo gën nekk mooy ur sa oote xanaa bii oote moo gën a yées si oote yi ndax bokkoon ci inkaar bi gën a bon far yow kaaba giñ ci xam benn la walay mashriq wal maghrib fan wa tuula fa sam wajhullaay kaaba goo xam ne tabax nañ ko dipp ay seekal maam aadama ba léegi yonte bi ñu ngi ci aj mag ñu kaaba nañ xam kaaba googu nag yàlla mu ko taxaw ci dëkk bu ci dëkk yi mooy makkatul mukarrama jur yëpp dafa aj mag jamono bu nekk amul benn yontu bi yàlla bu mas a woote ba taxaw benn kaaba kaaba googu am wul yàlla boobu mën a wéddi ban benn kaaba bu kaaba googu tey nag bu nee ba zaman ñëw ci biir senegal ñëpp yaakaar senegal Sénégal nitu islaam ñoo fi dëkk ñu ñi baax ñoo fi dëkk effectivement nit baax ñoo fi dëkk gaa wante suñ demee nag ba am benn groupe ci ci ñi oote islam créé fi nag léegi nag benn kaaba tabax kaaba di ko wër di añ mag mooy seen kaaba ñoom lii moom musiba Sénégal wax yàlla lii war nañ ci wax ju ñëpp war nañ ci wax ñaaw na lool dëgg-dëgg ñaaw te du ma mos dëgg-dëgg ba mu wax akabar dara mënu ko dëggal dara mënta fexe fexe bu mu nekk dëgg ñaari kaab du am mukk kaab gi benn la xam nañ ko pare tey nag bu ñu demee ci suñ mbokk yi nekk euh, Ziguinchor xaw ma Casamance gis ma tey benn groupe ci sam ñu beddeeku samp seen kaaba te li gën a garaaw sax dem nañ sax ba ci dégg digg yi ñuy dégg ñu ne ka nga njëkk sañ sa doon na jéem a wanta ay doomam pour rey def tabaski xam nga lii lii lii aram na lii lii lii rek lii dañ njuumte la bu metti métti métti waaye waaye gars yi nañ day tollu waay nañ day toll ci lii lii gàcc la gàcc la pour Sénégal gàcc la pour l'islam gàcc la pour képp koo dégg ci islam tey. wax dëgg lii gàcce la gu rëy la tey Sénégal ne wëlër bi amoon yëpp tey lii daane na ko tey foo demee tey ñu naan Sénégal gan ah Sénégal li ngay xam ñoo ak yonent yàlla ba samp ay seen kaaba ak bopp wéeri kaaba ak yàlla gi nangam nangam nangam xam nga lii ñaaw na ci Sénégal ñëpp a koy ñaawlu du ma sa rafet nag yow mi koy yow ma fa nekk nag di ko jëm a def waaye waaye dayatulul am na loo xam ne boo ko defee ñu wax la ci dayatulul lii mënta nekk dëgg am na ñu ko topp nag mooy li wax rek fii lu waay oto topp la waaye du rafet taaru amutut Insa waxoon na ne balaa jamono di jeex fanweeri fenkat day taxaw ne yàlla ma yónni waaye ñu amul lan la bët a baax di tey nag ëpp na sax fan fanweeri fenkat a bëri na lool ab yónni bi yàlla yàlla ma yónni moom ku ko wax ku ne njumte nga wax dëgg yàlla ma yónni man yónni yàlla la xam nga ci xaqiqa dafa am loo xam ne maanaam mën na ko jàngale am loo xam ne moom zaay du ko jàngale mukk nag dafa am pièce boo ko toppee ne ay martaba la ay martaba la da am nooy nooy si affaire bi di ko waxee ba te mu ne xam-xam bokk bu leer nañ te ku ñëw nga jàng ko waaye yonte yàlla bokk ne indiwoo dara diine islam moo fi nekk ba léegi yokkee ba oote diine boo xam ne yow da yàlla bu bees nga da war a indi sa diine yi bopp mbaa sa téere bopp mbaa lu mel nii waaye yow téere bi nga créé noonu di ko di wax ba léegi xam nga téere ba lan la am ñu am nañu naan ñu ngi kat nag seen téere waaye gën naa ñu bu buy jul daal bu ñu noddu seen pulaar dañ koy def bu ñu lekkaam ñu ngi seen pulaar bu jàng bu ñu julli ñu nga jàng ci pulaar diine pulaar amut diine yàlla moo am diine yàlla nag mooy l'islam om na yëpp taaqi xayra islamu diinan bala yuqbala wa fi lax min xaasirin vraiment maa ngi ndokkal àddina bi yëpp di ndokkal waa Sénégal yëpp di wax ne am nañ gàcce am nañu vraiment mbetteel am loo xam ne ñaaw na rafetul setut sellul amul lijaaba amul maarutulaa tabaraka wa taala maa ngi koy maa ngi wax taal Sénégal yëpp nañ wax ci lu nii lii moom rafetul dagg dëgg dëgg rafetul oote bu na am na waaye bii may oote oote yi na xanaa bii mooy oote oote yëpp bii moo ci gën a màgg ñu ngi nekk sant yàlla baax du baax waaye nag waaye nag la waaye waxoon démb ca Musaylamatu kasaab ma Musaylamatu kasaab ah wala batta ndeysaan moom dafa ñëwoon jamono yun sam di wax bu yun sam sam waxee moom itam mu dem firi ay bi neneen di wax ba am ci mbooloo bari mu jigi nag mu créé at am mbooloo banaan àddam yàlla ko xaaj ñaar benn côté bi maa ko moom benn ko yun yàlla maa ko moom yun sam bind ko leetar ne ko ma muhammadi ila kasaab man lii léegi jóge na ci man Mouhamed Salah jëm ci Musaylimatu Kasaab mu ne ko yow li ngay oote ba yoo xam ne nekk dëgg waaye Musaylimatu Kasaab sa xëy na ci ci ci ci ci ci ci dégg nit wax na dëgg bu ne yàlla dafa xaj bi ñaar benn maa ko benn moom waaw bi moom mooy fen bi yuntu sax moom mooy dëgg loolu la waaw waaw loolu rek la mën a firi Musaylimatu moom lim moom mooy fen yuntu sax moom mooy dëgg. arqoan na waxoon na qul jaal xaqu wa zaqal baatil ina a saxuqa dëgg day des ba faw lu dëgg na day dem yoonam ma ngi sant yàlla baax di nuy addem yëpp di leen ndokk di leen ziare wasalaamaaleykum bara jaajëf Cheikh eh, eh, yaakaar naa ne sax ci benn simili sax yaakaar naa ne doy na sëkk waaye nag du nu toog mukk te waxtaanu ñu diggante Cheikh Islam Baye Ibrahim Niass ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga baax ñu sax même bu dee benn simili rek xam naa nit jot bi moom bariwut waaw xam nga léeg-léeg da nga nga waxaat beneen wax ñu ne ah yow li nga ne wér yaa ngi koy saxalaat feneen fekk maqaam yi bokkuñ li ku li maqaamin in darayta maqaalatun Cheikh Ibrahim ak yontaal Muhammad kan mooy Cheikh Ibrahim kan mooy yontaal Muhammad alayhi salaatu wasalaam wax naa léegi man yontaal ay martaba day feeñ ci ay maqaama di di yéeg di wàccaat feeñ na ci nubuwatu sallallahu alayhi wa sallam nubuwat tëju mu duggaat ci guddi ga feeñ ci wilaayatu wilaayatu tëju mu duggaat fenc ci xilaf laay ko wa taala moo tëgg de bàyyi ba daa wax da nga dégg ma naan walim la pourquoi pas wa ayni yow ma ayni muhammadu sara sirru fi haykal waru waay léegi nag bàyyi wax na yonent am bàyyi ak yonent naka lañ mel ñoom ñaar bàyyi mu ne man yonent bi ak man dama ko bëgg bëgg ba nekk di moom mu nekk di man taw yàlla bi sa alam bi ñu ne ko bàyyi bi ne mu ne wa rabbiya lam yoxla makanan wala waxta fa jaawaro taha wa jaawaro shi'ri wa jaawaro ne bayta dem nga mam yàgg mu naa ko badali mu hayya aw xabaani wisaalo wa man naa la sër musa kon bàyyi yu ne tam fu nekk ñoom ñaar duñ nekk ñaar ba yomal xam akbar bàyyi na man bàyyi pourquoi pas wax ma yàgg mu ne waqattama fatshi hinda mahdi waqat xanat jami wurjal xëyba të ta qadaayi waaye fa maa xattuhu fi sharqi wal xarbi fët fëdan il walim laa walim laa pourquoi pas waaye yow maa ay ni Muhammadu sara sirru fi haykal waraay waaye nag wa ahlu samaani kulluhum fasadaqiyan saman xam nañ asru hawaay vraiment bàyyi ak yonent bi daal dëgg-dëgg mu nga mel ne daal six ak neuf rek noonu la bàyyi yontu salam mel six daal boobu ne boo defee nii mu nekk six boo defee nii mu nekk neuf bàyyi moo ak yontu bi kii day nekk six kii nekk neuf mbaa kii nekk neuf kii nekk six rek ñoom wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, jërëjëf euh, sang euh, Barham Ndiaye di la santaat bu baax a a baax rek di la jox xam naa ne waxtu bi dab nanu rek di la jox nga tàggatoo jot bi bariwul waaye saa suñu la yittewoo rek nga yomb ba ñoom même bu dee benn simili sax da ñu ko nangul euh, looy tàggatoo. waaye li may tàggatoo rek mooy sant yàlla sant yàlla ci jëmmam sant yàlla ci melokaanam sant ko ci turam waaye sant ko ci jëfam sant ko ay jeexitalam bàyyi dafay wax ma sant yàlla daal amul mu xayat mu ne alhamdu mutlaqan waaye li zaatil baari yàlla moom nag mun suma salaamun alal muxtaar yi kim julli feeñ ci moom daf ci moom tëjali mooy yonent alayhi salaatu wasalaam kooku mooy basru wujud yi kaw ne bii jihu yi mooy yonent alayhi salaatu wasalaam basru wujud kooku mooy markasil asraar yi ko central mbool yëpp ñun sama ko téye markas asra kooku mooy siru suuni am am yëpp seen mbóot mooy yonent alayhi salaam dëgg dëgg bàyyi tag na yonent bi kooku mooy maj mahil anwaar yi leer yàlla yëpp ki ko téye moo rasul sallallahu alayhi wasallam kon ñu ngi sant yàlla baax di nuyu ñëpp waa islam ci lii ñun waa lislaam ñu sant ba nañ sant yàlla ba te gën a góorlu te nañ gën a joxante loxo te gën a xam diine ji waxtaan di ci waxtaan guddi ak bëccëg moo dagan nañuy waxtaan télévision nañ bay par parloo yi par parloo yi moo yàq diine ji nag aussi ah par par nañu oo ñi am xam nga ñu waxante dëgg ku wax dëgg ñu xam dëgg la wax ku wax doon ñu xam waxul dëgg lii muy di islam islam dëgg ko taxoon njëkk naa ngi sant yàlla baax di nuyu umma bi yëpp nag foo may nekk di nekk ci islam ak foo may nekk ak ku la mën a jur ak foo mën a bokk tawhid ba nga nekk dëgg la mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah lii mooy kalima tawhid baal bu dul bii nag caaxaan rek la kon foo may nekk maa ngi lay joxloo di la nuyu di la ndokkeel waaye maa ngi beral encore nuyoo encore umma bii nga xam ne ci Sénégal te Sénégal Sénégal dañu am lu ki mu saam ndax Sénégal li fi fa ci ay borom xam-xam Sénégal li feeñ ci ay wullu yàlla Sénégal lay feeñ ci ay leeru yàlla yoo xam ne ay xabar xam-xam rek ñoo ëpp xam ci àddina bi monde bi yëpp ñi ci ëpp xam waa mooy waa Sénégal moo tax bàyyi daana ko tagg Sénégal ne fa Sénégalu ya'wi taxt zillu muhammadin wa yabud rabban jala sanan mu wahida fa man zanna xeyru hansa fa sannahu saqimun halilun baatlun lan yu ayda ruwaydukum ëllëkan sa lan taraw madadal ana qatara tara islam an chabran maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar ci islam wasalaamaaleykum rajo Cheikh Ibrahim info info info info info info info maa ngi nuyu baax information yi rafet yi jàmm ji jàmm ji jàmm infra ji jàmm yéen yàlla mooy jàmm waaye jëmm jàmm moo ñu taamu salaay info nag kii ba info joxe information moo ñu taamu salaay salaam information bi nag moo xamle lan muy lislaam yàlla mu yónni ci joxe information tariqa teen ñëw fayda irama ñëw fi information bi kii mooy jàmm ji info jàmm ji info muy taal Mahamad kon bu njëlee ab rajo tudde ko jàmm ji info tudde nga ko ko tedd tudde nga ko ko sell tudde ko borom maqaama borom lijaaba borom martaba maa ngi baax di nuyu den zaare wasalaamaaleykum jaay jëfe Cheikh Ibrahima jërëjëf euh, jërëjëf euh, sang barham géero geer ñaa ngi nii daal Muhammadu Rasulullah Mustafa Amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na be